الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yu tedd yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala boroom boobu nga xam ni moo bind ay jaamam boroom boobu nga xam ne moo moom ay jaamam boroom boobu nga xam ne mooy taxawu ay jaamam moo cay dogal ci ñoom lu ko neex di atte ca ñoom la ko soob ñi ngi koy seedal ne moom dong mooy suñu jubluwaay moom dong la ñuy jaamu bokkaalewuñ ko ak dara di ko ñaanit mu sax di julli ca yeneen tambam yu niwoon ci ñun suñu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla tànnoon ngir xamal ñu ana lan mooy ngërëmam bi ñu war a taxawee ci kaw suuf mbokk jullit jaamu yàlla bi xamal ne yow ab jaam nga bindoo sa bopp yàlla li bind yàlla li indi ci kaw suuf moo dogal ñaata nga fi am lépp loo xam ne nii mi ngi lay dikkal ci xéewali ci nattu ci moom la jóge jàll waala looloo tax ba ab jaam day delloo boppam yàlla ci jamonoy bànneex sant ko cant gu rafet waaye delloo boppam yàlla ci jamonoy nattu muñ ko muñ goo xam ne muñ gu rafet la bokk na ca la lay dimbali ci loolu nga xam ana ban pay la yàlla dencal wuy muñkat yi suñu borom yàlla mi nga jàkkaarloog julit yi nga xam ne waroon ngaa jàpp ne ah ñii de dañoo waroon a am rek jàmmi àdduna juna boy yi ndax ñoo gëm yàlla ña ngay julli ña ngay woor mooy ci nañ njaaloog sàcca carte waaye déedéet mbokk mbir bi demewul noonu àdduna bi ñuy dund du kërug pay àdduna gi ñuy dund kërug nattu la looloo tax suñu borom nattoo nañu jaamu yàlla yu ñu ko war a defal waaye nattoo nañu ay mbir yu ñu war a moytu ci bakkaar naka noonu it la ñuy nattoo lu metti ci bakkan yi ci alal gi ci njaboot gi ba pare nag di xool aka naka la ñuy taxawee ay yéen mbokk jullit heure bu natt amee dañu war a dellu ci yàlla jàll waala xam ne pay yu rëy ma nga ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit day dala du ko dal na doon loolu aw tiis la bu ko dal wala njàqare la gum ragal ci kanam xatta dig bu ko jam sax suñu borom man ka cay faral ay bakkaaram man ka cay yëkkatil ay darajaam gannaaw loolu it jullit heure boo nekkee ci nattu xoolal ña nga xam ne ñoo la gën a tar ay nattu ay yéen bokk julit yi tedd yi xam ngeen suñu jamono yi tey jii day képp kenn ci ñun lu muy xalaat ne nattu la bu mu indaale ngelawaay nay bàyyi xel suñu mbokk yee nekk ca Palestine mbokk suñu mbokk yi nekk ci Palestine tey rawatina fa ñuy tudde Gaza yahudi bon yi ca Amérique ak Angleterre ak Occident nekk seen gannaaw gis nañ ne mbokk julit ñu ngi bombardé suñu mbokk julit yi guddeeg bëccëg di rey jigéen ñi di rey xale yi yàq kër yi yàq alal ya loolee da ngay gis booleeg tiitaange ba mu àndal nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg ca la nga xam ne moo lal xeex boobu mbokk julit du dara lu dul xeexu diini yahud ya ba ñuy xeex diine tax ñuy xeex bokk na ci seen talmud seen téere yi gën a màgg yi ñu gën a màggal mooy ñoom dañoo war a xeex pour delloosi li ñuy tuddee Israël bu mag bi nga xam ne dana ëmb mboolem Palestine mboolem lu côté Syrie ay Irak ak yu demee noonu boo demee ci seen téere dañ naan képp ku taxaw sa kanam rey leen ko rey leen jigéen ñi rey leen xale yi képp koo xam ne seen noonu la bu leen ko bàyyil dara loolu la ñuy jàngal seen doom yi ci seen école yi loolee kon xeexu diine la jullit yi tamit ngallaawaay war nañoo xam lan la Palestine représenté ci ñoom lan la Jérusalem bi nga xamee ne nii. tey jii américains yi barki démboo njaay jël nañ ko jox ko Israël loolee mbokk nañu xam ne Jérusalem mooy place bi nga xam ne suñu borom yàlla fa la def masjidul aqsa ba pare ne daa barkeel la nga xam ne moo ko wër kaka sosoon mooy ibrahim alayhi salaam borom bi ne wa najjaynaahu wa luutan ila al ardi lati barakna fiha lil alamin ca la ko suñu borom jëlee mu daal di bàyyee ko iraq ñëw sanc si la nga xam ne mooy Palestine mboolem yeneen yi ñëw gannaawam mboole seen ku dul suñu yeneen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Palestine googu moo nekkoon sa daluwaay loolee ñu nekk ca sëtam ba yonent yàlla yanquur tabax la nga xam ne mooy masjidul aqsa gannaaw ba maamam tabaxee kaaba ga seen diggante nekk ñeent fukki at mbokk la jamono histoire di dox di dox ci étape yu bari ba baa suñu borom yàlla yónni yonent yàlla Muusa ma nga nekk Égypte ak bani Israil firawna di leen rey rey gu mel ni ñoom gi ñuy rey tey suñu mbokk yi rey gu ñaaw suñu borom yàlla musal leen delloo leen Palestine delloowu leen ko en tant que yahud daleen ko delloo ngir en tant que dañoo gëm mi ngi noonu udxu udxulul ard al muqaddasata allati kataba allahu lakum ca loolu mooy xam leen ne bu ngeen demee yéen a koy moom in kuntum muminin su dee gëm ngeen kon mbokk Palestine yàlla jagleelu ko arab jagleelu ko chinois da koo jagleel ña nga xam ne mooy ña nga xam ne dañoo gëm Moussa nekk fa ay jamono ya soob yàlla gannaaw ba suñu borom yàlla jëlee ko fa histoire dox na fa lu bëri yàlla indiwaat beneen yonent mu yonent yàlla Suleymaan mu ñëw presque junni at après Moussa alayhi salaam ca la tabaxaat jàkka jooje ñoom ñu koy tuddee le temple de Suleymaan jàkka jooje ba mu ko tabaxaatee dem nañu ay jamono histoire yu bëree bëri jaaraat na fi allahuma lu dul ne. tey jii yahud yu bon yooyee bokk na la nga xam ne bokk na la nga xam ne pexe bi ñuy def mooy dañu ne masjidul aqsa day dañ koo tabax ci kaw lii di jàkkay suleymaan kon fokk dañ koy màbb ngiree génne waat loolee nga xam ne suleymaan moo ko tabaxoon mbokk ñun julit ñi la chaque ñun ñoo gën a yéey ci suleymaan alayhi salaam ñun ñoo gën a yey ci Muusa alayhi salaam comme na nga xamee ne nii noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leerale ci bi ñuy leeral la nga xam ne daa aju ca la nga xam ne mooy Ashura ala kulli xaal mbokk julit dem nañ ci jamono histoire di dox histoire di dox ba baa suñu borom yàlla subhanahu wa taala suñu borom yàlla subhanahu wa taala yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi jële ko makka daal di koy yóbbu fa la nga xamee ni nii kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne jël na suñu yonent yàlla muhammad jële ko makka daal di koy yóbbu fa la nga xam ne mooy Aqsa bi mu ko yóbboo Aqsa jël na yonent yi dajale leen fa ñoom ñëpp mu jiite leen foofee jàkka joojee noonu la nekkee jàkkay lislaam di continuer nekk jàkkay lislaam baba yu baree baree bari ci ay mbir dox fi ala kulli xaal mbokk julit dem nañu nag ba jëmmi jamono ndam bi yàlla mayoon lislaam ñu amoon la nga xam ne mooy amir ngóor googee daanu ci dawla usmaniya ci 1924 ca la la nga xam ne mooy occidentaux yi daal di fexe ba créer la nga xam ne mooy Israël ci biir Palestine ca la nga xam ne mooy 1948 depuis booba ba léegi fitna jógu fa ci 1969 la ñuy jëloon masjidul aqsa daal di koy taal taal ko indi fa fitna boo xamee ne nii loolu moo taxoon ñu créé aussi bi ñu créé donte ne ne yooyu yëpp mbokk julit gis nañu ne amul woon benn njëriñ lu waral loolu mooy julit ñi ña nga xam ne ñu leen di xeex nañu xam ne du Israël waaye ñu leen di xeex mooy ñu leen ngémb nekk seen gannaaw loolu nag yow lan moo ci sa position yow julit li ci sa position yow julit ngalla waaye ñu ngi la koy bàyyi fàttali di la ci bàyyiloo xel mooy lu jëkk xamal ne jullit day jullitey mbokkam lépp loo xam ne métti na kenn war naa métti ñépp tey jii benn jëmb lañu kon la nga xam ne mooy xew Palestine ngalla waay war nañoo métti bu doon kàttan am na jullit bi da nga war a dem xeex jàppale leen ci xeex boobi waaye loolee mbokk xam nañu ne loolee jullit ñi ñu ëpp ci ñoom mënuñu ko la nga xam ne moo ci desoon maa ñu jël ay ndimbal yónnee leen loo xamee ne nii la ëpp ci jullit ñi mënuñu ko la nga xam ne moom la kon jullit man mooy lan ngelawaay bañ leen a fàtte ci suñuy ñaan nañuy ñaanal ñi nga xam ne mooy waa bani israil ñi nga xam ne ñooy banni ñañ ñaan ci kaw ñooñu di isra ñooñu di yahudi bon yooyee nga xam ne jotuwuñu dara ak bani israil bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala joxoon la nga xam ne mooy Palestine ñooñu ay jurit lañu woon ñii ay yéeféer lañu dañuy man wax ne dañoo nekk ci diine waaye xatta diine yahud ñoom xam nañ ne sax nekkuñu ci waaye nag moom la ñuy bubboo su ko defee jullit ba ne bañ a xeeb boppam ci di leen ñaanal foo mën a toll mbokk yàlla dana def ci ñaan loo xam ne du ko def ci xeex te ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ñaata yoon yàlla alak na ay noonam ci ñaan kese avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muusa ca la xeex commencé mboolem yonent yi jiitu woon Nuux Huud Ibrahim ñoom ñépp la yàlla alage seen noon mooy ñaan yañ doon ñaan kon nga la waay tey am na nit ñu dajaloo Dakar di manifester ngiree feeñal seen naqar ca la nga xamee ni nii moom mooy Palestine googee na am loolu yal na yàlla fay leen ci loolu waaye nag nañu xam ne mbokku jurit loolu moom kenn xamul ñaati yoon la am waaye la nga xam ne mooy la ëpp solo yow jurit sa digganteeg sa borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo waxoon ne heure boo gisee loo xam ne musiba la ngal la waay jéem koo dindi ak sa loxo tey jii bu arab ya meloon nañu war a mel jàppoo woon nañu mën a jàppoo lii xew Palestine du du xew tey kenn xalaatu ko ci dëkku occidentaux yi waaye ma nga amee ci dëkku arab ya lu tax mooy noon yi fexe nañ ba tasaare leen gannaaw ba arab ya wàccee seenub ànd ci loo xam ne it fay laay alhamd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko nee na jamono gi ñëw de xeet yi jëkkante leen comme ay nit ñu xiif buñ gisee benn boolu lekk diñ koy jëkkantee ah sahaaba yi na ko mayum yàlla yónni xanaa jamono boobu jullit ñi dañuy néew mu ne déedéet jamono boobu jullit ñi dañuy bari lool waaye nag dañuy mel ne la nga xam ne mooy ab puuke mooy puurit bi génne ci taw bi buy dégager salte yi bu boobaa dafa am feebar buy dugg ci yéen mooy lan mooy al wëhn ñu ne ko ma yóbbu yàlla yoon lan mooy wëhn mu ne wëhn mooy jamono joojee jullit ñi dañuy bëgg àdduna ragal de ca mbokk suñu noon fa nga xam ne fa la ñu gën a jaarale mooy fexe ba fàtteloo ñu dee fàtteloo ñu suñu diine bëgg loo ñu àdduna koo gis la nga xam ne mooy mébétam tey mooy nan lay def ba réussir nan lay def ba jabatam réussir ca la nga xam ne mooy wàllu àdduna même bu dee loolu da koy jënd diineem loolee mbokk lu néew ci doomu aadama ñu ci mucc su ko defee heure bu ñu bëggee dimbali suñu mbokk ya Palestine na nga xamee ne nañuy xalaat ne suñu bopp la ñuy dimbali ay yéen mbokk jullit yi yahud yi day ña ngay dóor ay bomb ci al aqsa waaye xamal ne xeex bi c'est international yàlla ko wax ci téeréem bu tedd bi wa yas'awna fi l ardi fasada wallahu laa yuhibu al mufsidin aw laa yuhibu al fasad suñu borom nee na yahudi bon yooyu adduna yépp ña ngi fay dox di yàq su ko defee la nga xamee ne ni tey mooy jubluwaay bi gën a rëy demal ci képp ko xam histoire ci Occident lépp loo xam ne nekk na fa ay mass média ya ca gën a mag yahudi mag yi ñoo ko yor lépp loo xamee ni nii ay banque yu mag la yahudi mag yahudi ñoo ko yor su ko defee loolee xeex bi ñuy xeex tey jii ci internet bi ci réseaux sociaux yi ci lépp mooy fexe ba jullit ñi fàtteloo leen essentiel fàtteloo leen seen diine sunu ndawi jullit ñi ñu branché leen ci loo xam ne amul njëriñ adduna waxumaa njëriñu àllaaxira seen temps yépp ñu def ko ci loolu loolu mooy dugal ci ñoom feebar ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon ne noonu dañ leen mës a sëxatoo lan moo koy waral dafay feeñ ci yéen alwahn te mooy xubbu dunia wa karahiyatul mawt bëgg àdduna ca ragal dee loolu nag mbokk julit ku nekk ci ñun da caa war a bàyyi xel boppam mooy man fan lan mooy sama warugar tey jii day li ñuy tuddee ah njabootuk lislaam néewal nañ leen doole fépp ca yàlla waxoon na ne lillahi l izza wa li rasulihi wa lil muminin ki am teddaange dëgg-dëgg ki am kattan ak pouvoir mooy yàlla ak yonentam ak jullit ni yàlla nan lay waxe li ba pare amul kon day wane ni jullit ñi kat seen ngëm googee wares na koo seetaan looloo tax mbokk tey ji soo dellu woon ci borom xam-xam yu mag yi yàlla leeral seen xol xale yooyu nga xam ne dañuy jóge fii naan dañuy dem Syrie dañuy xeexi ñee nga alqayda ñee nga ay ay lu nekk ci ay seen créé di ñuy créé wallahi bokk dañoo juum suñu borom yàlla moo ne in tansurullah yansurukum tey jii ni ñuy dimbilee suñu diine ji wallahi jéego ba ci jëkk mooy ñu delluwaat ci yàlla jàll wa ala wéetal yàlla yaakaar yàlla moytu grati yàlla yi ñuy takkal sëriñ si moytu may yàlla ya nga xame ni nii moom dong moo jagoo di ko def ñu jël ko di ko jox keneen ku dul yàlla lii mbokk tànk amul wallahi suñu borom yàlla dañuy seetaan amma jéego bi jëkk boo xamee ne yow ca nga war a teg sa tànk da nga fekkee résultat ba wala doo ko fekkee loolu du problème waaye yow teg sa tànk ba dee fekk la ca mooy nga dimbali diine yàlla ji nan lay dimbali diine yàlla ji mooy wiital yàlla jàll wa ala xam ne yàlla rek yàlla keneen ku dul yàlla jaam la amul njëriñ amul lor ñeel boppam waxumaa di ma ko amal adduna wala alaxira jullit du toog mukk ak moromu kum mën a doon ci kaw suuf naan ko yaay suñu yaakaar adduna yaay suñu yaakaar alaxira laa wallahi jullit du yaakaar ku dul yàlla adduna ak alaxira moom ngeen di nar a wax léegi ci julli gi yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong la ñuy jaamu yow dong la ñuy yaakaar yow dong la ñuy dimbali ko lii mbokk mooy njëlbeenu jéego dimbali diine yàlla ji résultat ba nag dana feeñ wallahi yonent bi alayhi salaam moo ko wax ci du deñ nee na yahud yi ak jullit ñi day du ñu deñ ci ay combat léeg-léeg ñii féete kaw ñii féete suuf waaye balaa adduna tukki yàlla dana doonil dooleel jullit ñi ñu dàq yahud yi xeex leen ci jamonoy masihi dajjal xeex leen ba yahud yi tasaaroo ci kaw suuf ba montagne yi di woote ak garab yi naan hee yéen jullit ñi kay leen am na ay jullit am na yahud yu nekk suma gannaaw garab yi di woote ay yéen jullit ñi kay leen am na yahud yu làqatu suma gannaaw lu dul benn garab bu ñu tuddee xërxët ca loolu ci garabu yahud yi la kon ndok mbokk jullit ndimbal baa ngi nii dina ñëw yàlla déggalaate na ko léegi lenn rek moo ci des mooy yow nga bokk ci ñuy jëmmal loolu la nga koy jëmmale du dara lu dul fexeel ba lii di tawxiidu pas-pas saxal ko ci yow saxal ko ci sa njaboot boole la nga xam ne mooy teg sa tànk ci siraatal mustaqim boole ko ak say ñaan wallahi jullit yooyu mujj dàq yahud ya ndam baleen yàlla di may sa ndam lay doon yow yaa wattu diina ji boobaa ñooñe ñooñe jot ca ndam ba ñuy am sa ndam lay doon gannaaw loolu nag mbokk lii bu ñu ko deful nañu xam ne bomb yooyu mooy dal ca Gaza waaye lu gën a garaaw bomb mi ngi dal ci mboolem jullit yi nga xamee ne nii xamuñu lan mooy pexe yahud yi ca pexe yahud nekkul lu dul dara lu dul seen njaboot gi ñu dox seen digganteeg diini bi tax ngeen tedd àdduna tedd àllaaxira loolu moo tax ba mbokk jullit ñu ngi delloo di ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla dimbali ñu ci suñuy noon yal na yàlla delloo ñu ila siraatil mustaqim yal na yàlla rafetal suñu pas-pas yal na yàlla rafetal suñu taxawaay ci diine ji yal na ñu yàlla fegal fitna yahud yi ak ñangem bu yahud yi yal na yàlla delloo seeni pexe ak seeni fitna ca seen kaw ba dootuñu tal la nga xam ne mooy jullit ni lii di masjidul aqsa yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla taxawal ko ñu fay taxawal waxtu julli juróom ba ila yawmi din képp ku ko bëgg a màbb yal na yàlla màbb la allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin